tey jii dañ fi ñëwoon pour def formation ci mécanisme de gestion des plaintes avec entreprise Ecotra ak les membres des comité local de médiation sociale membre comité local de médiation sociale nag benn kuréel bu ñu fi teg par arrêté municipal mu regroupé ay imam représentant imamu gox bi représentant délégué de quartier représentant bàjj de gox représentant jeunes yi ak représentant entreprise bi ñu jox travail yu réseau bi ak représentant mission de controle bi ñu fi taxawal di suivre euh, travaux yi léegi nag bi ñu fi tey journée bi euh, journée waxtaan la ndax xëy na Ecotra dafa jël train bi en marche parce que fekk nañu commencé réalisation bi ñëw nañ fi def formation avec NGE bi doon defar STEP bi mais dañ fee jël si pour def formation avec Ecotra ndax procédure normal mooy loolu ndax fooy def travaux population bi souvent dañuy am ay jafe-jafe ci dëkkuwaay ci cadre de vie bi souvent day am ay gas souvent yoon yi du praticable oto yi du nu mën a jaar te baax na aussi même mbir boo koy defaral nit pour yokkute baax na aussi nga may ko fu muy jooy yee ndax travaux yi souvent dana toj euh, réseau SDE dana toj euh, poto lampe courant yooyu yëpp baax na population bi xam ne loolu bu amee am na fi commité boo xam ne ne moom mooy fa la ñu mun a jooy pour kooku mun a régler problème bi mbir mi nag li tax ñu def médiation médiation mooy waxtaan mooy la fi amoon bu njëkk ba mooy ca pénc ma boo amee problème dem ca pénc ma am fa solution loolu lañ fi teg tey moom la ñuy indiwaat ne euh, entreprise bu ñëwee mission de contrôle bi ñëw euh, cabinet MSA bi ñëw membre population bi représentant yi ñëw su suñu toogee suñ fa waxee seen problème xëy na dana am ay solution waxtaan yooyu nag am na lu luñ doon jooy ci jamono yee paase ndax nag noo def comme ni mu muñ koy wax di noo togg omelette te tojoo ay nen waaye nag bu mu yàgg lool ca taal ba ndax bu yàggee dana xëm loolu nag lañ bëggoon nag pour na nag defaral leen euh, benn comité bi nga xam ne ne bu ñuy jooy mun nañu jaar foofu ñu jooy ñu trouver leen ay solution tey nag loolu moo ñu fi dajaloon ci bésub tey bii ñu toog fi waxtaan bee am liggéey ba dem di porte waaw loolu nag amu gu fi woon xëy na daan nañ jot ay appel téléphonique mu jóge ci commune bi ñuy ñëw foofu ndax nit ñi xamuñu léegi nag bi ñu ñëwee nag tey jii euh, defe naa ne tey la jot. tey la jot ñu toog ak population bi wax leen ne leen lii lañ fiy def mosuñoo dem ci police mosuñoo def ci gendarmerie parce que ñun depuis deux ans ñu ngi fiy intervenir te dañoo gis population Kounguelwaar bu engagé population Kounguelwaar bu xam ne ne projet bi projet de développement la bu yokk seen cadre de vie population boo xam ne ne la njiit yi fi nekk muy autorité locale yi di administratives sont tellement engagé elles sont tellement engagées approprié nañ projet bi ndax ñun duñu ñëw mukk toog fii duñu gis autorité bu ñu xam ne ne mun nañu wax ak moom chaque fois ñoom ak ñun ak ñoom ci terrain bi ñun ak ñoom ci liggéey bi ñun ak ñoom ca te ca ca fànn bu nekk bu ñuy teg comité ñanga ca bu ñuy def formation ñanga ta donc ñun xalaatuñu sax am foofu waaye conflit nag dafa am nooy teg système booy teg ba nga xam ne ne du teel a ñëw ndax nit ki boo koy def di ko def di ko def bu yàggee mu mer ñu ne nag euh, manifestation mécontentement boobu ñun wax dëgg yàlla dañ fiy teg kuréel boo xam ne ne nit ki du dem gendarmerie du dem police du dem tribunal mais dana dem jooy ko foofu te jii vraiment te te comité boobu représentant maire baa ngi ci te maire bi moo nekkal askan askan bi donc fu ñu ko jooyee foofu lañ ko war a jooyee bu soobee yàlla lan fi lan doon ñaan yàlla la ba léegi incident pas d'incident sa pas d'accident moom la ñuy ñaan yàlla amaat ko fii waa kay. balaa ngaa jeexal rek am na benn question aussi ñoo tàngoor bi ñuy am waaw message bi ñuy am di ko laajte loolu munta ñàkk ay la ñu tuddee ci communication ay billets la. ndax wedd gis bokk fi les réalisations yi am Koungheul c'est des milliards mënuma apprésentir wax ñaata la mais c'est des sont des milliards station d'épuration des eaux usées station de pompage un réseau ay milliards la loolu wedd gis bokk ci te defe naa population Koungheul bi gis nañ loolu bien nag mënut a ñàkk ci communication ndax population moo demee noonu da nga dégg lu la neex da nga dégg lu la neexul réseau bi ñu gas ci koñ yi xam nañ ne loolu trente-six mille francs yooyu ñuy participer pour sa kër dootoo amati foofu ndox maak douze ba yëpp fa lay jaar a ah, loolu de wax dëgg yàlla ni am na gox yoo xam ne ca Ndakaaru ge amuñu ko donc nag lii c'est pour li président wax ne dama bëgg équité territoriale donc doter les les les ville secondaire vraiment lépp luy ville bu mag bi di am mu am ko ci ci ci projet boobu lañ nekk moo tax tey jii Koungheul am yi nga xam ne jumtukaay yoo xam ne la d'affinissement yoo xam ne grande ville yi ñoom ñoo koy am te loolu ci ci équité territoriale bi la bokk euh, trente six mille francs yooyu ñuy laaj chaque membre mu def ko pour jot ci réseau bi tey jii bu projet bi jeexee borom kër gu nekk mi ngi jox deux mille francs pour dugg ci donc defe naa ne te dootoo defati foos dootoo defati leneen sa kër foos ba na fan koy defee mun na am leneen te defe naa équipe bi ñoom buñ leen fi tànnee teg leen fi de dafa fekk ñu teg sélectionné leen xam ne ne xarañ nañ ci liggéey boobu mu ñuy ñu bare ñu tànn leen ci indi leen fi ne leen lii ci li ngeen mën yéen ñu jox nañ leen réseau bi jox nañ leen fii ngeen def ko donc du jëluñu rek benn entreprise bu nekk fee rek di nelaw mais ñu ko xam lañ ko dénk donc daal di may continuer di ñaaxaat population bi ñu gën a yaatal gën a ànd ak dal pour accueillir euh, entreprise bi mu def liggéey bi mu pare ci jàmm ba ñëw ñëw réceptionné suñuy ouvrage question waaw xam nga projet du moti lépp en général projet bu buñ koy commencé day am rayon d'action bu ñuy yem laal soog a continuer surtout projet boo xam ne da ngay bëgg population impliqué ci dugal ci loxoom dugal loxo bi yooyu c'est un geste symbolique la pour mu ne ne man mii bëgg naa ko ndax trente cinq mille trente six mille francs tuuti na tuutiwul mais tuuti métti na ci population boo xam ne amul doole ku mel ni Koungheul yemale nañ ko ci yenn quartier yi waaye dañuy ñaan yàlla enveloppe bi yokk pour ñu mun a laalaat feneen ndax ne enveloppe bee toll foofu moo tax xëy nañu yem foofu mais ñi ngi ñaan yàlla résultat projet bii ñu am ak implication population bi ak appropriation bi ñu population bi am ñu tëggaat beneen këyit pour mun a def prolongation bi loolu la ñuy ñaan.